maa ngi liggéeyee ci euh, kii for maa ngi def formation transformation fruits et légumes ci fii pikin laa koy defee ci Tata Famaka moom moo ñuy former ñun ñëpp daal man la ak samay moroom. cause association bi moo tudd cause. association bi ñoom ñoo kii li ñuy liggéey bari na daal comme lu ci mel ni Tata Fama moom moo représenté kii boobu moom mooy jël ay élève di leen former transformation fruits et légumes bi. en même temps day defaale yeneen activité am yoo xamante ni activité boppam la yoo xam ne bokkul ak ñun emploi yi muy formé daal. Hmm, man lecture braille bi nag man maa ngi ko defee woon ENAS man man man def naa enseignement maa ngi bàyyee troisième léegi bi ma arrêté troisième ci laay doog a ñëw def si formation bi fii mais formation bi moom avant ma koo def fekk na man ma mën braille ba pare daal ndax defoon naa enseignement. suñu suñu teewaay fii dañoo ñëw rek pour. kii bokk ci ci ñuy jëmmal bis bi rek waa ak wone tuuti suñ suñuy kii comme li ci mel ni yii nii suñu matériel yi ñu fi ne suñuy capacité la am na ñoo xamante ne nii xañ na mësuñu koo gis waa pour won leen ñu xam daal ñu xam ne lii mooy comme li ci mel ni yow tey lii ma la bindal nii bën bën yii nii yaa ngi koy gis ci carton garab yi yaa ngi koy gis tuuti comme li ci mel ni gan wala Presta mool man liir naa ko ba taay mais yow yaa ngi gis kii bi mais bën bën yi yow doo foog ni lii ay écriture la te fekk ay écriture aveugle la moo moo nekki nii dañuy làmb di ko daj rek